xamante ni mooy impacté yi nga xamante ni ñoo nekk Dakar massawu leen coono parce que xam nañu naqar ak métti bi nga xamante ni moom la ñuy dund depuis bi ñu annoncé terre bi ba léegi donc mi ngi mat juróomi at yoo xamante ni ñoom ci souffrance la ñu nekk ñu ngi leen ci massawu coono di massawu coono bépp impacté boo xamante ni terre bi dafa lor tey jii ñi fi daje mooy le collectif national bi ñuy wax les impactés du terre bi ëmb ñëpp bi bàyyiwul kenn tey jii li ñuy wax les maraîchers ñi ngi fi borom kër yi ñi ngi fi teew locataires yi ñi ngi fi teew les brocanteurs ñi ngi fi teew les artisans les artisans les commerçants et les IEC kon tey dafa mel ni mbooloo mi kenn desul lii li ko waral nag fa ñu tàmbalee mooy amna jamono depuis 2016 ñu ngi doon xeex mbenn mbir mooy dañu ne dañuy jóg train bi TER bi daf ñuy yëkkati suñuy kër suñuy place d'affaires te lañ ñu naroon a fayee xam nañ ni ndàmpaay ga baaxul woon ndax dañoo demoon nii lañ ñu naroon a fay képp kuñ ci fay njëgu terrain lay doon fa nga dëkk fekk na kër lañ la jëlee. loolu nag ñu xam ne lu jéggi dayoo la ñu ne lii mënuñu ko seetaan ndax kër yooyu bañ ko doon am dañoo daj lu ne pour am ko te benn boobu nag lañ ci yàlla wërsëgale te ñu ko bàyyi muy say noonu mooy bii tamit dañu bëgg nag ubbi ci bëtu senegal yi ñu dégluñu njombe ji nga xamante ne APIX def na ko ci biir projet bi dafa amoon fonds yi ñu waxee les fonds sociaux yu toll ci dix milliards dix milliards yooyu la ñu bëgg a wax abis mu leer la ñu lan la ci def fu mu ko dugal. fu mu ko dugal laaj leen ko fu mu ko dugal. waaw. 1500 dafa ñëw mu commencé ci marché bu ñuy wax marché Thiaroye Bakary Dabo mu ngi nii moo leen représenté tous les commerçants de Thiaroye moo leen représenté mi ngi nii toog sama wet marché bi avril 2018 lañ ko waroon délivrer ba tey jii ñu ngi ci ban ban mois. mënta pare xaajagul sax xaajagul bay pare ñu am ay chèque commerçant yooyu comme li ñu ma waxoon sànq yu ñu leen waroon a fay maanaam seen place ya ñu toj tëj ko deux ans waroon lañ ko fay ba sànq fay leen ko marché Maam Jaara ñu yëkkati fa six cent commerçant ba tey jii amuñu benn fu ñu leen recasé mais ku ndey ay ku ma amul ndey kay warul am ci projet bi boo recasé marché Thiaro yi ci même département Pikine kay xam war nga xam nga li ci tegu war nga leen recasé